salaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV amati mbégte ak kontaan jàkkaarloog yéen saa su si fii nii si Pexxe TV euh, jàkkaarloog ñaar ñi nga xamante ni moom mooy ki Iran nekk waa ji nga xamante ni saa su ne bis bu ne ñu ngi def ak moom ay vidéo sénégalais yëpp di ko apprécier wax dëgg muy def lu am solo luy jëriñ askan bi tey ñu wata ñu war a toogaat ci plateau. si émission bi nga xamante ni moom mooy dund mu war a indiwaat ay thèmes yi nga xamante ni yu amal njariñ askan bi amal njëriñ li nga xamante moom maanaam mbokk internet yëpp ak keneen ki nga xamante mooy xarit joxaane temps yi <laughs> moom mooy lëmbe TikTok bi nga xam ne <laughs> gars yi ñu koy wax lu ne waaye tamit mu nekk jàmbaar si chaîne bi nga xamante ni moom mooy Pexxe TV yor fi benn émission bi nga xamante nii moom mooy lu xew tey di indi foofu tamit ay thèmes yu am solo di ko waxtaan ak sénégalais di ko bokk di ko bokk tamit ak ñi nga xamante ni ñoom ñoom mbokk internet yi donc xarit joxaane donc comme que man moom def naa présentation bi nga xam ne lii émission dund bi la dundu moom mooy lépp ba passé def nañ ko gars yi apprécier nañ wax dëgg yàlla première euh, vidéo bi gars apprécier nañ euh, wax nañ ci lu rafet commentaire rek yëpp gars yi nice nee nañ émission bi nice donc tey mu nekkaat beneen vidéo bi nga xamante ni war nañ ko mën a waxtaane fii nii si plateau bi nga xamante ni moom mooy dund si biir scène bi nga xamante ni moom mooy Pexxe TV Khady Diokhané lan ngay nuyoo ak lan mooy sa thème tey si émission bi nga xamante ni moom mooy maanaam dund ngir maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Iran mi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi eh, di wax rek ne amaat nañu mbégte fii ci seen eh, émission dund ci biir Pexxe TV macha allah mu nekk émission bi nga xamante ne lu ci nekk rek dinañ ko fi waxtaanee tey nag ginnaaw bu mu nuyoo mbokk internet yi ba pare dama leen di xamal ne maa ngi indi jalousie li nga xamante ne moo lëmbe réew mi mi ngi ci famille yi mi ngi ci xarit yi mi ngi ci eh, dëkkandoo yi mi ngi fu nekk tey loolu laa indi. yaakaar <laughs> boobu noonu dina nekk thème bu yëpp jalousie <laughs> Iran mbaa amu si àll bi. ah jalousie comme li waax ko mer daal defe naa fépp la moom. kon <laughs> jalousie fépp la am. xam naa boobu moom saa xaar leen ko boobu moom xam naa ne moom Iran moom xam naa dina si indi lu ne parce que àll bi moom man xaw ma xam am na fa amu fi ndax moom du ma fréquenté àll bi. donc Iran nuyul après ñu xool euh, yow tamit ban ban thème nga indi ci plateau dund bi. asalaamaaleykum waa Pexxe TV maa leen nuyu leen sant la gërëm di nuyu waa àdduna bi yëpp. du nuyu sama xarit ndaw yi booy ndaw yooyu yooyu rek may wax noonu waaw sama sama xarit booy ndaw ndaw yi. <laughs> waaw <laughs> ak Aïssa. unité 21 maa ngi ko nuyu tamit. di nuyu tamit. taay moom taay moom da yor buzz bi yow moom saa yi ñëpp lay apprécier ndax affaire yi ngay def ay jaanaki ay lu ne. non xam ñooñu dañu ma bëgg si yàlla tax rek ak affaire yi ma def moo tax loolu moo tax sama noonu laa mel. Ah, mais maa nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. léegi tey lan nga indi tey tey lan nga ñu indil maanaam euh, comme thème bu ñu war a waxtaanee moom lañ nar a moom lañ nar a njëkk waxtaanee tey. waaw mais xam nga li nga xamante ni tamit si àll bi lay am fii parce que yow yaa géré àll bi a Iran rek moo ñu ko mën a wax. <laughs> lan nga indi. lan daal li ma indi moom. barki démb dama toog benn waay fekk mu fi ay côté timis yor ñaari ginaar yu rend yu weextal moo def ma koy sarax waaw donc yemal foofu <laughs> benn waay bu fekk Iran si àll bi indi ñaari ginaar yu weex tàll rendi ko ne da koy sarax donc loolu mooy moom la ñuy nar a njëkk a fii nii bon dinañ ko découvrir ñu déglu Iran moom dinañ ci indi lu leeral bu ñu caaree tamit jox Xadi Joxaane moom tamit mu indi ci tamit ay kàddu bu fekkee tamit li nga xamante ni lu mu nangu la wax bu fekkee li nga xamante ni lu mu nangul tamit ñu wax parce que plateau dund moom bon lu nekk nga siy dégg lu nekk tamit nga siy gis donc Iran euh, ñu demaare si yow euh, mooy que ni da ne waaj ji dafa la indil ñaari euh, ginaar yu ñu rendi yu weex tàll ñëw di la ko sarax si donc euh, waa ban anam la ñëwee si yow nan la def ba ñëw ba ñu ba mu xam ne yow fii mooy sa tool kii mooy Iran ba mu naan da la koy sarax dañ ko tegtal wala nu mu demee noonu waa ji sarax bi nu mu demee explique ñu affaire bi scène bi nu mu demee ak yëpp. kenn tegtalu mu nuyu sax mais dama xëy ba timis waa jot nag moom mu may sarax ay ganaar man nag man say ganaar sax soxla ma ko mënoon ko lekk sax sa dara dama si fekk moom bu soobee yàlla mais dama ko soxlawul tamit xëy wax ma sax dara ngi si mais geste bi rek moo tax ma xaw a kii ginaar si xaw ma nu ko ko rendee xaw ma lu si nekk xaw ma ne ma ne ko doy na yóbbul say ginaar. nga ne moom musu nuyu. waaw bu ko rombee di ko nuyu xam maa defoon sax déggul olof mais moom mu gën a dégg. xaaral loolu médd nga ci xalaat wala yow da ragal yow mu mel ni yow yow nekk ci àll bi miin àll bi ñu lay sarax ay ginaar ak jamono ji ni mu méttee nii ginaar ni mu seeree. moom ay kii rek lay lekk ay xob ak lu nekk lu nekk lay for lay lekk waaw. ah léegi tey nga bëgg ne da ngaa bañ ginaar yi loo ci ragal médd wala yow da nga ragal mystique. bu ma saraxoon comme ay xob si lay gën a baax comme que ne ngeen ay xob laay lekk mais ay ginaar timis moom sarax nañ mu lekk lekk naa lu lekk mais bu ku ma xëy suba teel sarax ma ay ginaar mun naa koo jël wala fekkoon mais ñaar ginaar yu ñu ren di timis passé na kay kenn musuma koo sarax bu nekk xale bu nekk mag loolu rek moo tax ma ne ko jël waxuma sax ne pour ndax da nga koy jox sa xaj wala wax ma dara dama koy dama la ko bëggee ma ne ko say ginaar soxla ma ko demaatal say ginaar bi mu demee sama bàyyi moom ma bàyyi ay 5 minutes mu toppaat si ginnaawam damaa defoon da koy sànni si peggu ñag bi wala kii mais dafa yóbbu ay ginaaram di dem yoram. xamutoo fu mu ko teg. yow ginaar daf ko yóbbaale de fu yóbbu xool naa astafra mais xool naa yoon bi yëpp gis ma fi ginaar yi ma xam ne daf ko yóbbaale. moom fan ngeen daje. si yoon bu sew bi yoon bu sew bi may jaar ma yow fi ñuy jaar la daje ñu fen moom moom fekk fii mais dama ko yàgg gis yoon bi laax ah, mais fii la ma fekk ma toog mu may jox ñaari ginaar yi ñu séq yu ngand sax yu ñu leen ba pare timis passé na tuuti man ak man say ginaar soxla ma ko mooy xam yooyu. ñoom genre yooyu ñoo tontu woo Iran en tant koo xam ne yàgg na ci mbedd mi yàgg ci àll bi macha allah bu fekkee dañu ñëw sarax ko man dama bëgg nga leeral ma yow da nga ragal mystique ci sarax bi mu la sarax wala comme ni façon bi mu koy defee nekk ci àll bi di rendi ak yooyu mu leer affaire. nee na nee na waa ji musu ko nuyu quoi. comme loolu ko cité est tamit cité wu la xool xam ne kii nii xaaral ma jéem ko fexeel wala dara comme fan yi yaa ngi def ay façon ndigg yu mucc ay Europe fépp ñu ngi lay woo macha allah koo ko takkal benn fan ñaar ndigg li dafay daal di sedd guyu sama yaay yeeg ñooñu ñi nga xamante ne dañoo am feebaru ndigg ci kàttanu yàlla Iran moom bu leen ko fasalee rek dootoo leen ko gisati comme ci yooyu ngay yëngu est-ce que ragaloon da wala yow yaa ragal ak fi nga toll nii ak bi ma xam ci yow ragaluma mystique ragaluma loolu geste bi man xam nañu damay romb fee ñoo xam ne dañuy rendi ginaar si duñ ko taxaw duñ ko téye dañ koy taxaw rendi ko waaw. léegi sa xaw ma nu mu koy rendee xaw ma ko bi rendi lu mu ko wax mënu naa ko jël lekk de góolu ma la man loolu ginaar yooyu loolu gën a tuut si lu ma xaw kii la ginaar yooyu jaaxaluma wan. maanaam moom affaire lu mu def ñoo jox la ko jaaxul ko mais yow yaa ko bëggul jël. waaw man maa sama bopp maa ko bëggul jël samay rab yi moo ko nangul man lu samay rab nangu rek dama koy def mais samay rab lu mu nangul ko def. yow bi ma koy jàpp kooku laaj naa ndax dafa bari nit mun a bariwul nit su bariwoon nit du ma dem bu ma demee damay gaañ mais su may lu may def dama koy yor def ko waaw kay ñëwaat ne la def naa lii mais bu baree ay kii kii rek daf am bët boo xamante ni wala làmmeñ boo xamante ni soo moytu mën a laa mbas Khady Diokhané li mu wax loolu jar na bàyyi xel parce que tamit ay réalité Sénégal la ay réalité Afrique la ñun ñëpp ñu ngi fiy dund xam nañ lépp lu muy demee. ñu ne ko boo ko rendee jox ko nitu àll boo xam ne ci àll bi nga koy gis rendi ko ci àll bi nga jox ko nitu àll loolu it mën naa nekk mu nekk ay fexe yoo xam ne mën naa doon yu baax mën naa doon yu safaan. Iran sa thème bi am na solo donc yow lay bon ginnaaw bi waa ji defee loolu noonu tey ban kàddu ngay mujjee par rapport ak ñi ngay def ñi ni mel si àll bi. ban kàddu ban kàddu ngay mujjee tëj si thème bi nga xamante indi nga ko par rapport ak ñi nga xamante ñu ngi def yi ni mel si àll bi maanaam def seeni affaire dem ñu leen di fekkee ay tegtal wala fekkee leneen ak leneen est-ce que jar na ko jar ko ban message nga leen di lancer ñooñu noonu. toujours loo mënti def ba muy si àll beeg muy si kër yeeg muy si mbedd beek muy si koñ yi su fekkee xam nga ne lii ngay def ba boo ko defee pare heure boo tëddee doon nalaw rek bu ko def. lu mu mënti doon bu fekkee da ko def ba pare def nga ko pare mais après nga koy fàttaliku di ñaaru bu ko def. mais su fekkee lu baax la moom bu kenn terewul lu baax mais su fekkee loo xam yow def nga ko tey jii suba bu nekk muy nekk sa xel même passé na sax nga bañ a see dugg moo gën. maanaam loolu la ñuy wax def loo xam wax loo xam boo tëddee nelaw. waaw kay man sooy wax noonu la moom def loo xam wax comme noonu rek mais toujours gisal sa xel lu ak lu mu mënti kii yow itam gisal sa am na bu la dara jaral dara. waaw mooy loolu mooy gisal sa xel boo gisalee sa xel dara doo ko jaral. jaajëf Iran tey thème bi nga indi am na solo lool te tamit am na jàngat yu bëri yi nga xamante ne xam naa ñii seetaan am nañ ko si que yaakaar naa ne Sénégal tamit loolu dafi bëri di def yenn affaires yi ngir am dara yàq nit pour yow nga dem wala yàq benn affaire pour yow nga dem alors que yow mii nga xamante ni yow yaa ngi juddoo fi nga xamante ni yaa ngi nekk fi nga xamante ni yow xam nga ni fii ñëpp dañoo gëm te kiñ gëm yàlla rek la donc boo gëmee yàlla man yaakaar naa ne am na si yoo xamante ne doo du la tarreel am yoo xamante du am yoo doo si yàgg parce que da ngay gëm ne yàlla li mu bind sa jëb yi nii balaa ngay dee di ko am donc Iran tey thème bu am solo nga indi mooy waa ji nga xamante ñëw na di la sarax te xamoo ko te tamit yéen a ngi yàgg nekk si àll bi surtout ngeen yàgg nekk si àll bi musu la nuyu mu xëy benn jour rek ñëw fekk si la fii rek ren di ñaari gramme ñëw la ko loolu tamit bon dama moytu parce que àdduna moom kenn xamul donc loo moytu moytu rek. lu baax la donc ñu leen koy baaxee yéen ñi nga xamante yéen safoo seen bi nga xamante ni moom mooy Pexxe TV euh, si seen émission dund Iran yow yaakaar naa sa wàll wàcc na ñu dem si ki nga xamante ni mooy Khady Diakhané ki nga xamante ni wax dëgg yàlla muy def émission bi nga xamante ni émission bu am solo si seen bi di émission bi nga xam ne ñëpp nga koy seetaan ñëpp koy suivre mu ngi yëngal jamono ji internet bi ndax lu mu wax. wala lu mu génne rek nit ñi apprécier ko waaye nag du nekk loo xamante ni ñëpp duñ si d'accord ndoo te àdduna tamit noo la demee bu ñuy d'accord rek faw ñee bañ waaye lépp rek ay jàngat nga siy mënti jëlee donc xari joxaane tey buñ jugee si Iran tam bu am solo bu mu indi te yow lan nga indi ne nga jalousie ah donc jalousie mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla man yaakaar naa est-ce que dina denc si nit man man loolu laay damay naan loolu est dina mën a denc àdduna est-ce que dina mën a denc si nit donc tey yow lan nga si indi. waaw li ma indi ci jalousie dëgg la xam naa ne pour mu deñ du yomb wante juste rek pour euh, xamle ne ñun bu ñu nekkee ci média bi euh, mu denc nit mu bañ a ci nit nit ki nga xam ni am na xelam di xalaat parce que yàlla ba muy wax sax dañ ne borom xel yi laay waxal ki nga xamante ne lii ñuy wax da koo dal mu toog attentivement déglu ñu bàyyi ñu xel macha allah am na kàddu yoo xam ne bu ko déggee rek yàlla mën a def xelam xaw a wëlbatiku ci jalousie bu mu amoon ci koo xam ne waru koo am ci moom. ndax léegi léeg da nga gis koo xam ne dafay bokk ak nit ndey ak bàyyi mu am jalousie seen diggante moo xam seeni waajur génn àdduna bàyyi leen ci kër gi kenn ku nekk dafay siis sa moroom ci kër gi te waajur yi ñoo nekkoon ci kër gi di sëy ci ngor jur doom yi ci kër gi ci ngor yàlla suñu boroom jël leen ci ngor ñu dem wuy ji bàyyi fa doom yi kon doom yi kenn ku nekk dafa war a xam ni ci ngor kii ñoo bokk ndey bokk baay te suñu waajur moo moomoon kër gi kon kenn ku ci nekk rek dafa am ci kër gi ak ak yelleef boo xam ne suñu borom moo la ko jagleel loolu jarul jarul jarul jalousie pour man mu am ñi nga xamante ne day am waajur bu góor boo xam ne dafa génn àdduna bi mu génnee àdduna bàyyi ay doom moo xam yu góor moo xam yu jigéenaa ah giri léeg-léeg ci biir euh, miraas mu ñuy miraasal da ngay gis jalousie ci biir parce que da ngay gis koo xam ne daf koy jaral mu dem tibb suuf tànk kenn wala ñëpp ñi nga xamante ne ñoom la bokkal kër gi bokk ak ñoom benn waajur bu góor tibb seeni tànk yóbbu képp ku wax waxu suuf ci kër gi da ngay da ngay maanaam daal dina am lu la dal faatu bi nag faatu nag moom ci loxo yàlla nekk mais léeg-léeg nit ki dina ci jéem yàlla nag mooy dogal loolu yëpp jalousie di ko indi muy ay wujj yoo xamante ne dañoo nekk ci kër muy ay jigéen yoo xamante ni dañoo bokk luye ci biir kër muy ay jigéen yoo xamante ne dañu bokk ji ñëw ci nat muy ay fréquente muy ay jigéen fu ñu fréquenté lu gën a bëri loo foofu li ci gën a bëri ci jalousie ci jigéen ñi la ëppee am na nag ci ay góor yu manqué yoo xamante ni dañu dañu jalousie dañu soxor fu ñu nekk ñu ngi soxore seen moroomu góor lu mu am ñu tekki seen bët xool naka la ñuy def ba yàqal ko ko loolu am na mu mel ni doomu aadama booy dund ci àddina li la war a gën a yitteel ci sama xalaat bu gàtt mooy sa bien-être yow ak sa bu njaboot nan ngay def ba génn ci àdduna bi fii ñu toll nii métti na méttiwaay bi nga xamante ni euh, dëgër na dëgër bi nga xamante ni nit ku nekk foo nekk rek na nga nekk ci sa bopp te bañ nekk ci nit ki waaw. parce que boo nekkee ci nit ki temps boobu ngay def ci nit ki terewul bu dee lu mu am la nga nekk ci pour yàqal ko yàlla mooy dogal te ragalul kenn. te lépp loo xamante ni jël na ko jagleel ko doomu aadama dangay sonn rek ak di ko jéem a fakkasal waaye yaakaar naan doo ko mën a lu bari ndax yàlla moo wax ci alxuraan fa alu li maanaam lu ma neex laay def man yàlla kon bu fekkee dafa jël doomu am lu mu ko jagleel am beneen doomu aadama bu toog fee daal di ne lii nga xam moom la ko yàlla jox man ci sama bopp dinaa fexe ba foqati ko ci ay yaakaar naa ne day tàng te metti rek waaye du ko mën a lu bari giri Khady Diokhané nga wax lu am solo euh, nga ne jalousie day am ba si ay miiras ba si ñi bokk di loué basi ñi nga xamante nii dañuy bokk famille donc bon mu nekk jàngat bi nga xamante nii bon euh, def naa ko si li nga jot a développé donc euh, man ma buggoon laaj euh, lan moo tax ak lan mooy indi mbirum jalousie lan moo ko indi wax yaa ngi koy junj léegi léegi ne bon peut-être da nga gis nit ki mu am dara ak xam nga nga ne kii waru ko am ak yooyu noonu war war naa ko mën a am ak yooyu noonu xam nga au delà de ça bu loolu noonu bon loolu lu ñuy judduwaale la wala lu lay dab la wala nu mu demee. Hmm, du judduwaale kontaan naa ci laaj bi ndax léeg-léeg nit ki daf koy dal ñu ne feebar la ci moom feebar yàlla topp ko kenn ki nga xam ne dafa wéradi feebar mooy lu la yàlla teg. li la yàlla teg topp la ko ndax moo la ko teg mi ngi mel ni ki amee feebaru xel même bu la rayee boo demee yoon dañuy naan duñ ko téye parce que wérul ki nga xamante ni dafa amee feebar bu ko yàlla suñu borom teg mooy feebar nga am goitre wala say bët problème mu bët mi yopp wala nga waa nga la nga jékki-jékki loolu mooy feebar mais li nga xamante ni yàlla dalaa bàyyi ci àddina bi jox la sa xol ak sa xel ngay xalaat amoo dara dara loo xalaat lu dul ni lépp lu doomu aadama am rek dama ciy taxaw lu mu mën ma def ko maa ngi gas maa ngi suul maa ngi dem ci armeel yi maa ngi dem ci àll bi comme Iran ni mu ko waxee léegi maa ngi rendi maa ngi def lu nekk mais yow ginaar yi ngay rendi wala bëy bi ngay rendi des fois sax da gis ñoo xamante ne dañuy reendi mala nag daal di koy sànni ci géej gi mu perte noonu te mu am ñoo xamante ni Euh, ñu ngi dund ci àddina dëkk bi naqari na ci ñoom ba pour ñu jënd benn kilo yàpp ci seen dépense problème lay doon mu mel ni boo ko jëloon rendi ko def ko ay saam yu baax benn bu na nga teg ci ñeenti téeméer saraxe ko te yàlla tax te bul xaar benn sëriñ wax la ko foog naa ni loolu moo ëpp yool ndax lépp lu ñu def ci lu baax rek te mu defal ko doomu aadama moo xam mu bañ ko defal sax doomu aadama yàlla da koy fay kon bu fekkee ni def nga loolu te yàlla rek tax yàlla dina la fay ëllëg. kon maanaam su déggee du du du du feebar quoi maanaam li li lii nit di fekk bi la wala lii nit la ba jékki lu mu dab ko. du feebar yow yaay am xolu kiñaan jalousie jëmmale ko ci doomu aadama di nga bokk ak nit ndey ak baay mu am nu mu mel ak sa yaay nee naa la nga dem sëriñtu. ngir dëddale sa yaay ak kooku te mu jur ko muy doomam. foofu lu am solo nga wax noonu donc Iran yaakaar naa ne thème bi yow war nga si am xalaat yaakaar naa ne war nga si am xalaat war nga si am idée ndax jalousie la wax boo déggee xarit joxaan lu mu développé yëpp laal na si côté jigéen laal na si côté famille laal na si ñuy bëggante laal na si ñu boq laal na si lu bëri daal donc tey euh, boo déggee xarit joxaane lu mu wax si mbirum jalousie maanaam fiiraange fiiraange gis nit rek Euh, mu am dara nga ne du ko am tey yow nga xam ne bon yaa ngi si àll bi balaa dara sax balaa ngay développé si adu joxaan yow loolu mës na dal si àll bi maanaam yéen ngeen ne yéen ñi nekk si àll bi ngeen di fiir ngeen di ngeen di ngeen di defanti fiiraange. xam nga maa ko wax si benn émission bi ma doon lekk nen yi tool yële ma nekkoon feye noonu tool ba mu njëkk liggéey paa mu njëkk liggéey am na ku fi ñëw fan yi paas sax mu ne bon paa ba dafa demee dafa wàcc dafa wàcc mais mu mu ngi fi ba léegi waaw léegi am fi ñëw xam na la de ma dakk ma dakk loolu lay wax ni paa boobu moom njëkk ma topp ne kaay li ngay def ma lay bind livre ma bañ tool boobu ma lay wax noonu genre xëccoo yooyu moo fa amoon chaque jour ba fay fekk ay nen di ko lekk chaque jour ma fi benn paa ne ma ran seen tool bi dafa am histoire boo fekk tee nen bu ko lekk ma fekkaat fa ay nen baxal ko ba mu ñor dama ba koy lekk ma am xel ñaar ma ne paa wage waxoon na ma lii ma jël ko jox toj ko sa mbenn xaj jox sa mbenn xaj bu tudd Thomas nga bi nga xaj bi lekkee lu rëb bi dafa paralysé si yoon bi yoonu autoroute ba ma dénkaan ak foofu xëy suba mu taw dellu ma jëlee ma ko si ginnaaw suba su ma demee ñen ma xaj bi dee na ma ñëwaat wax ko paa paa soo lekkoon nen yooyu dee nga ma ne ko moo tax lekk ma ko xam nga yaa ngi wax ay affaire ginaar gi ñu toog naa comme loolu ku am ku ñëw fekk jënd beneen béy bu ñuul kuk def ko juróom ñaar sarax sarax ko pare moitié bi mu sànni ko si géej gi dafa sànni rek ñu daw jëli ko ne ko sarax egg na mais ay kooku Iran maa ko bëgg lekk rek. donc Iran euh, wax nga lu am solo si affaire jalousie mooy maanaam nee nga tamit même ba ci tool bi fii nii ngeen nekk nii maanaam maanaam maanaam fii da ngeen ko fi def parce que am na tool yoo xam ne nit ñi dañu doon loolu dafa yàlla moo ko moo ñaaleeg doomu aadama mais nit warul soxor rek di ko téye soxor nga woo si lu mu wax. Iran déedéet déglu ma rek déglu ma rek xam nga man ci say biir waxtaan dégg des fois dama lay dégg nga wax loo xamante ne noonu la mais léeg nga wax loo xamante ni du noonu dama lay attaqué carrément parce que boo ne yàlla moo ko moo ñaale doomu aadama rek day dafay mel ni nit ki amu ci benn part de responsabilité waaw te soxore sa moroomu doomu aadama li mu am muy taar muy euh, matériel bu mu am muy wërsëg bu ko yàlla jox muy lu mu mën a doon rek warul kenn ndax saa bu bàyyee xel ne kii li mu am suñu borom a ko ko jox même bu dee dama ko soxore sax naa ko muñ ndax yàllaa ko ko jox d'accord xarit Joxaan yamal foofu noonu léegi moom moom li mu wax nii dafa ne du lu ñuy mooñaale te yow nee nga lu ñuy mooñaale si doo si doomu aadama loolu lan nga si wax parce que moom bañ la loolu de waaw loolu nag mën na koo bañ mais xam nga li mu wax xam nga soxor soxor dañ si nit xam nga dañ kii dafa baax xool kii dafa soxor kii dafa def lii mën naa kii moon ko lu baax wan kee lu bon kii dafa baax kii dafa soxor kii damay gisal na kii dafa baax kii gisal ma daf bon loolu tax ma xam ne soxoru dañ si doomu aadama muñ am na ñoo xamante ni maanaam kon dañ ko judduwaale xare joxaane kon moom li mu wax la moo jafe muñ muñ moo jafe moo tax yàlla ñu ne yàlla dafa ànd ak way ñu muñ muñ moo jafe muñ moo jafe mais su fekkoon li li nit di def yëpp da nga ko muñ doo soxor xare joxaane loolu am na solo de mu wax noonu am na solo muñ bi mooy li ma wax léegi rek da cee ñëwaat foofu damay ànd ak moom parce que bu dee da nga gis nit ki am loo amul parce que nit ñi dañoo yaakaar ne nit ki am maanaam ay koppar rek yor otoom bu rafet këram bu rafet yàlla def mu ëpp la wërsëg loolu wërsëg la may yàlla wërsëg moo ci gën a néew. mais Khady Dioukhane foofu tamit dama naan liggéey la tamit parce que nit ki tamit mën na liggéey loo xam ne yàlla da koy jox loolu mais bu la ko joxul nga xam ne joxul la ko rek nga liggéey yow tamit rek. waaw loolu la sax liggéey sax taxul am wërsëg. Ah, bu doon loolu baara njënde nga xamante ne ñooy yenu ak ñi nga xamante ñooy taxaw ci tali bi di daw di la dab ak ay sase ndox sonn bay bëgg a dee ci naaj bi ci autoroute bi kon ñooñu kenn du leen ëppale du liggéey mooy may wërsëg da ngay liggéey rek liggéey naa liggéey da suutu maanaam da lay sa sutura rek waa dalaa laa war quoi. ndax yàlla danañ ñu liggéey ba pare jaamu yàlla soo liggéeyee mu néew mu bëri di nga am loo suturloo mais wërsëg bi nag mu pour mu baawaan kooku suñu borom moo ko yor mën na bëri mën na néew mais comme yaa ngi xëy di wàcc tam nit loolu dalaa war a del xëy di wàcc di nga am loo suturloo mais ki nga xamante ni dafa soxor mooy li mu wax fa laay ñëwaat muñ mooy nga ne kii lii ko yàlla may naqari na ma trop da soxore naa ko ko damaa jalousie ba mu yàgg nga ne wa naa ko muñ ndax yàlla suñu borom moo ko may. <laughs> mais xam nga loolu dina yomb ak di joxaat. mais da nga koy ah, ma. da nga <laughs> laay wax. <laughs> dafa laa Iran Iran lu mu wax ni mooy maanaam nga yow nga gis ne ne kii nii am na lii yéene woo ko soxoroo ko maanaam yéene woo ko ba pare nga soxore ko ba pare nga ne ma muñ garaawul loolu est-ce que yomb na Iran. xam nga loolu la ko waral xam nga la ko waral ah. ku mën seetlu nit yow mën nga fay ñëw bu dem ba ma waxaat yoon giri lan la sol dama la koy wax barkaal fàtt naa ko mais bu fekkee dama laa teg ba di la xulli rek moo tax mais su fekkee mënoo seetlu nit war arkuraan mën ngaa yow ba dem am nga waa giri lan la sol ma ne sax fàtt naa ko fekk seetlu ma la seetlu bopp moo tax mais boo ko seetloowul ay kii wala loolu rek nga koy commencé soxor du tàmbul di génn mais boo ko seetluwul rek daloo soxor jaajëf man yaakaar naa ne xel joxaan nañ ñam fii. Mhm. parce que lii moom xam naa ne moom. macha allah non bu ñu ko toppee waaw duñ fi jug mais Iran macha allah li nga tëjee fii nii. te foofu tamit bon lu am solo nga fa wax maanaam mooy li mu la yow sax bopp bi dafa bëri affaire parce que nit xel joxaan tamit li mu wax maanaam boo seetluwul nit ki rek. xooloo ay affaire am rek yu mu am ak yu mu ñàkk rek man yaakaar naa ne doo gis lu mu am ba di ko soxore. Iran lu am solo nga wax yow tamit yàgg fi rek. parce que boo fi yàggee te wér rek yaakaar naa ni mbok internet yi ak sénégalais yi nga xam dañuy seetaan dañ ci am kii donc Khady Diokhané ginnaaw bi nga indee sa bi Iran indi thème am si àll bi waa ji nga xamante ñëw na si àll bi bon comme que dañuy waxtaanee àll bi euh, ak li fi am ak li fi xew Iran dégg ngeen lu wax waa ji fa ñëw fekk ko si àllam si toolam jox ko ñaari ginaar ñu ren di ko sarax Iran bañ loolu la indi comme thème développé na si mu nekk lu am solo li nga xamante ni ñi nga xam ne ñu ngi dund si àll bi wala ñu ngi dund dégg li Iran wax mën nañ si jëlee njëriñ Khady Diokhané indi jalousie dégg ngeen liñ si wax te dégg ngeen li Iran tëj te dégg ngeen Khady Diokhané lu mu wax nee na macha allah lu am solo que ni jalousie day am fépp ñi bokk ñi bokkul ñi bokk koñ ñi bokk deret ñi bokk maanaam jalousie dafa yaatu xam naa a dañ koy gën a yaatalaat ndax xajul si benn émission kese ndax mën na ñëw si beneen fet beneen fànn boo xamante ni du bokk sax maanaam ak ñi bokk ak affaire yooyu noonu maanaam mën nañ ñëw si ñaar ñuy bëggante mën mhm. na ñëw suba si ñaar ñu bokk ndey ak baay wala ñaar si ñaar ñu bokk baay mhm. parce que fiiraange moom fépp la nekk dafa yaatu voilà mhm. donc Khady Diokhané euh, su la doon jox euh, ngay def euh, kàddu bi nga xamante nii bu mujj bi ngay tëjee lan lay doon waaw li muy doon mooy yow mi nga xamante ne danga soxoor danga iñaan foo toll yaa ngi xool nit ki nekkoo ci sa bopp ci nit ki nga nekk ma di la fàttali ni rek yàlla suñu borom moo ñu bind kenn ku nekk mu jox la lam la jagleel yàlla ragalul kenn te mën na lépp dalalal sa xel nga tal sa bopp temps bi ngay def ci nit ki di ci nit ñi di xalaat li ñuy def ak li ñu am ak ni ñu mel ak loolu lépp bàyyil foofu temps boobu def ko ci sa bopp ak sa njaboot nga xool loo mën a am ak noo mën a def ba avancé te bul di ti doomu aadama comme li Iran wax ba di ko iñaane wala nga di ko soxore suñu bokk jigéen ñi surtout yéen laay waxal yéen ñi jare ci ñett yi ci groupement yi ah da kenn ku ne na bokk ak sa morom ndey ak baay kenn ku ne xam ne li la indi ci groupement bi moo fa indi sa naw la jigéen li nga yéene sa bopp nga yéene ko ko te gëm ni yàlla muy buur mooy maye saa boo talee sa bopp rek di ñaan yàlla amaan dina am bis yàlla may la li nga bëgg fii la ñuy tëjee ba beneen yoon incha allah jërëjëf xëy joxaane am na solo donc Iran tey su ma la doon jox yow tamit kàddu bu mujj bon lan lay doon par rapport ak thème bi nga indi ak li xadi joxaane yaatal fii nii. xadi daal yal ko yàlla may lafal cat suturaal ko yàlla defal ko lu mu bëgg tamit kooku sama gàll mu may seet si ñu ngi tàmbali tey bi yàlla mën na see def jàmm. si émission dund bi. si dund bi dund ko dund na pare léegi sama gan gi nga way sama gan bees bi. muy Sarata xam naa moom temps yi dinañ ma ñëw commencé def ay émission fi nga xamante ne moom mooy seen bi di Pexxe TV mu fiy def moom tamit ay émission yu am solo xam naa ne Iran moom <laughs> wax dëgg yàlla Iran moo ko annoncé sax mais dama leen ko naroon defal surprise mais acca Iran lan ngay tëjee. damay tëjee sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu Maïmouna France. waaw Maïmouna waaw Maïmouna. Maïmouna sunu doomu ndey. <laughs> waxal Iran waxal Iran na def lii waxal Iran lu moytu lii waxal Iran macha allah lim ma jox baax na sama digg ba ma ko taxee may mu ne maa ngi lay kaañoo nag de maa ngi lay kaañoo ak spécialiste lañ xam naa loolu moom naa def émission spéciale bi nga xamante ni ñi mu faj ñi mu wér ñëpp dinaa leen jël benn par benn ñu def témoignage ñu nekk extérieur ñu nekk fii ñu nekk fépp ñu dugg gaa yëpp gis leen xam na ñii am na lu ñu doon ah, am na lu doon metti te yàgg na def na ay at Iran ñëw dugg si ñoom rek bon fasal leen ko affaire bi wér may mun a kaañoo naa dafa mujj lépp lu mu doon yëg ci yaramam daal di wér bi mu sangoo fii rek ci toolu Iran bi. loolu man maa ko njëkk def pi boobu noonu mooy maanaam man maa ñëw sama yaram neexul ma ne Iran sama yaram neexul ma ne ma dama jël ndoxu séyaan bi mais boo pare sama yaram bii ba féex Iran ne la lendemain fii daa fees dell. dafa mel ne yow da nga koo ndax boo ko sangooree da ngay daal di féex bu may dem nag. dégg nga Iranais ba ma waxee loolu lan laan demee vidéo boobu nag ñi ko seetaan lan laan dem fii daa fees. dañoo war nag ak seen i biteel ak yoonoon te lu am solo la lu am solo lu réel la lu naturel man dama ko dund. keneen ak keneen dund ko benn jour no def émission sax am kenn ku ñëw taxaw ñu ne ko foo jugee euh, euh, benn waay ñu ma ne ko foo jugee mu ne ma notaire la jugee moom tamit ma nekk benn waay bu baax nee na mu ngi suivre Iran nee na dafa ñëw fii nii ba mu gisee affaire yeeg yooyu noonu si vidéo si image yi ba mu ñëwee fii nii mu wax ko Iran Iran jox ko ndoxu seyaan bi mu sangu nee na ba mu sangoo si saa si man ak moom ñu ngi taxaw Iran taxaw ñëpp taxaw mu ne ma instant yii sentir dara si yaram bi. <laughs> Oh ma ne ko looy wax ni mu ne ma sentir dara si yaram bi. mun ne mu ngi bëggee Iran di bëggee chaîne bi nga xam ne mooy Pexxe TV Maymuna la nag Maymuna ah sunu doomu ndey <laughs> maa ngi naa amal jàmm rek waaw comme que sa bi féex na rek waaw leneen li siy topp ko indi incha allah yow ak ñi nga xamante ñu ngi nekk bitim réew yëpp na tëj nga de wala. Cheikh Faye tamit Afrique du Sud. waaw bi may maa ngi koy nuyu mu ngi may fàttaliku neen temps booy la Iran doon dóoraatee mun na mun na naa kii loolu mooy mun a Cheikh Faye <laughs> sama bu ko dagg de bu ko dagg am na. waaw li ma def. waaw ah. Iran. nee na ma mun na bu daara léegi waa léegi su mën nga koy essayé. temps booy loolu la ñu doon fooy sama mère ko fay ma fàttaliku démb. ah nga ne waaw gaañ ñoom Iran nga li waaw nga ne lii nu tudd. mun na nee na fàttali naa ko naa la ima naa la ko naa la ko ah, léegi nag nga bëgg ko fàttali sama put bi. moo ma ko wax <laughs> <laughs> jaajëf Iran donc euh, bon sama gars yi gis ngeen ne lii la ñuy indiloon tey mais Iran bëggoon naa ñu waxtaane tuuti si actualité rek tuuti rek élection locale yi yéen lan ngeen si xalaat. ah élection locale de dégg naa ñëw na ba pare teg ko ci yoon rek kenn bañ a ci carte gi kenn bañ def dara ñu bañ a njuuj njaaj kenn ku nekk boo ñemee rek dëggal sa bopp jël la nga am keneen jël la mu am ku ci nekk ñu xam fi mu toll du noonu waaye boo bëggee def njuuj njaaj dafa mel da ngaa ragal sa morom ngay jonganteel. Iran inte Khadija uh-huh. inte 21 maa ngi lay nuyu mais man waaw dafa ndax waaw dafa dangay déglu bu dag bu ko dag gis nga man uh-huh. yàlla fi jàmm nekk yalla ñëpp def jàmm rek uh-huh. ñëpp bu ñu defee jàmm rek dëkk bi neex bu kenn ku nekk comme xam yaa ko affaire soxor ku nekk bu yéenee sa morom jàmm rek lépp am jàmm yàlla yàlla def jàmm si élection yi yàlla yàlla def jàmm si élection yi yàlla may ñu wér ak wér le sama gars yi tey lii la ñu indiloon si émission bi nga xamante ne moom mooy maanaam euh, dund fii si chaîne bi nga xamante ne moom mooy maanaam Pexxe TV ñu ngi leen di jox dig daja ba beneen yoon jaa ngeen jëf.